aaya bi wax ne fala wa rabbika laa yuminuuna xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum ne du ngeen gëm lu dul su fekkee ne dañoo attewu si ci yow ci xew-xew yi xew ci seen diggante mu ne ndax ñi atte tey te attewoo wuñ diine yàlla ji ndax dañuy dugg ci biir loolu la shakk ne attewoo lu dul diine sunu borom tabaraka wa taala maanaam lu dul alquran ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kooku musiba bu rëy a rëy la moo xam ne ndattoo nañ ko xeetul islam tey ci bërëb yoo xam ne béréb yu bare bare bari la waaye nag dii si ci sukkandiku rek daal di wax ne diw sàngam yéefar la ndax atte woon na lu dul alquran masalam takfir mu yéefarloo nit daa doon bokk ci masala yi gën a xóot nga xam ne lu jafe jafe jafe jafe la laa yuminuuna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day jëfandikoo comme nii mu ci alquran yonent bi dana ko jëfandikoo lu bare bare bari fekk ngëm gi muy dàq mooy ngëm gu mat waaye dàqul ngëm goo xam ne mooy cosaanul ngëm ci boppam taxaw na fi béréb ne wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min wallahi yoon mu ne gëmut gëmul gëmul ñu ne ko kan yow yonent bi yàlla bi mu ne man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqa koo xam ne ay dëkkandoom mucc ñu ci loram waaw ndax koo xam ne day lor ay dëkkandoom dañuy daal di wax ne kooku yéefar la ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa bunt boobu ñu xool ko nit kenn ku nekk soo bala nga koo àtte da nga koy segg am na lu ñu tudd dawaabitu takfir mooy mooy ak jumtuwaay ak tënk yi nga xam ne moom la borom xam-xam yi sunna tënk ne nit ki balañ ne ab yéefar la nañ jaar ak moom fii ba noppi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni muy ñëwee ci alquran day ñëw ci sunna léeg-léeg mu dàq ngëm fekk ngëm nga lépp la dàq ngëm nekkatu fa kéefar dafay daal di ñëw wala mu dàq ngëm fekk dafa dàq ngëm gu mat waaye nag cosaanu ngëm la ma nga fa su ko defee bu boobaa jëf ja xool moo tax boroom xam-xam yi dañuy wax ne ñii attewoo lu dul téere bi yàlla bi ay xeet lañ am na ci koo xam ne lii la xam dafa réere téere bi yàlla bi xamu ci dara kooku dafa réer ku réer moom dañ ko war a xamal am na koo xam ne xam na sax xam na it ne téere bi yàlla bi moo gën gën ci moom gën ci aw xeetam gën ci léppam waaye lii daal xew na te am na ñoo xam ne ñoo taxaw di ko aar te bu duggee ci lii ragal dana am na lor yuy tege ci kawam nga xam ne am na lay yu muy joxe daal yoo xam ne moo tax mu bàyyi fi alxuraan di atte wala leneen kooku mën nga ko jàppe faasiq wala weneen tur woo ko mën a jox wala zalim comme ni mu ñëwee ci yeneen aaya wa man lam yaxkum na ko allah ulaikum zalimun doo mën a jëfandikoo kaafiroon foofa ci moom moo tax borom xam-xam yi dañuy wax ne ñetti martaba la am na koo xam ne dafa ñëw ne alquran jii daal moom dëppawut ak jamono tey maanaam diini jii dëppawut ak jamono dëgg la jàng na ko ba xam ko xam na léppam waaye leela gëm gëmut lii kooku moom ab yéefar la la shakk fi dalik am koo xam ne jàpp na ne lépp a yam maanaam alxuraan daal baax na waaye yeneen yi ci des itam baax nañ kooka ba tey li ëpp ci borom xam-xam yi dañ koy yéegal ci ne loola it kéefar la am koo xam ne nangu na ne alxuraan moo gën moo gën a baax waaye nag amul pexe lii rek la mën a def ñu ne kooku ab jullit la waaye faasiq lañ koy tudde ndax dafa jàng dafa bàyyi mbir yu mel noonu nag ay borom xam-xam yi jàng ba xóot ci xam-xam ñoom ñoo ko <laughs> ñoo ko mën a nattale dëgg la mën ngaa jàng xam-xam bi ba xam ko nii nga xam ne nangam ku ko def yéefar la ku def nangam yéefar la waaye diw sàngam mii ndax moom bi mu defee loolu yéefar la wala déet moo tax li ñu tudde masalatul itlaaq ak masalatu taayin muy wax rek globaliser ne nangam day ku ko def tàbbi nga ci kéefër wala nangam ku ko def tàbbi nga ci biddaa bokkut ak nit ñëw nga ne kii tàbbi na ci kéefër wala tàbbi na ci biddaa kooku faw nga jaar ak moom ci ay ay tënk yoo xam ne dem na ba jege fukki tënk yoo xam ne yooyu ngay jaarale ci moom yépp suñ jàllee nga door a wax ne kii ak yéefar la wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam pour misaal rek ci tàqale diggante euh, nit ki teew nga atte ko ak atte jëf ji wane ne bokkuñu rëbb na ci sàngara fukki yëf lim leen ca xadis ba muy jëmmi sàngara ci boppam ak ka koy defar ak ka koy defarloo ka koy jaay ak ka koy transporté di ko yóbbu ka mu koy yuut ak ka koy naan ak ka nga xam ne moo koy mooy lekk njëgg lim na leen bañ mat fukk mu ne ñooñu yàlla rëbb na leen kon foofu yëg nañ ne rëbb na leen foofu waxutal nit waaye dafa globalisé sàngara ak la ca ajoog ña koy jëfandikoo benn bis kenn ci ñi nekkoon ak yonente bi saxaaba yi ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naan na sàngara mu ñu dóor ko mu demaat mu naan ak sàngara ñu indi ko ñu dóoraat ko di ko def ba mu yàgg am kenn ci saxaaba yi mu ne allahumma al'anhu yàlla rëbbal waa ji waay maa aksara maa yu'ta bihi kii daal moom bis bu ne rek ñu indi ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko laa tal'anuhu bu leen ko móolu maa a'lamu illa annahu kii de li ma xam ci moom mooy ku bëgg yàlla la akub yonentam xoolal loolu ànd ak ne yonent bi rëbb na sàngara ak lépp lu ko laal fenn waaye bi ñu andee waa ji ci boppam nee na kii ku bëgg yàlla akub yonentam la kon bu leen ko rëbb kon nga xam ne masalam globalisme muy masalam itlaaq ak masalatu taayin ak liggéey bu rëy la boo xam ne borom xam-xam yi foofu lañuy ñuy ràññikoo ci keneen ku dul ñoom su dee ndaw ñi nag xàmmee wuñ ci yooyu yëpp dara fekk nañ rek laa yumin ñu ne ah, kooku jeex na kon ab yéefar la moo tax kenn ci xawaari ji biñ ko indilee maa ngi koy nettali mbokk yi kenn ci xawaari ji nga xam seen xam-xam ñoom dafa wóoroon na ne dafa gàtt biñ ko indilee Maamun Maamun ibnu Haarun Rashid amirul muminin ci ay jamonoom xawaari ji dañoo génn weddi ko yéefarloo ko sax moom mbooloo mi ñi indil ko ci kenn mu ne ko waaw yéen lu tax ngeen yéefarloonu mu ne ko benn aaya rek ci téereb yàlla mu ne ko ban la mu ne ko man lam yaxkum bi ma anzala allahu ulaikumul kafirun képp ku àtte woowut li yàlla indi ab yéefar nga aaya boobu moo tax nu yéefar loo leen mu ne ko ku la ne alxuraan la lii nga wax ni ku la ne alxuraan la mu ne ko loolu ijmaaw xeet wi la xeet wi dëppoo nañ ci ne alxuraan la mu ne ko d'accord yow nangu nga seen ijmaa ci ne moom mi alxuraan la lu tax doo nangu seen ijmaa ci niñ ko firee ñoom maanaam ay bool ko nekk ay martaba la am ulaayikum kaafiruuna ji du benn rek waaye ay martaba la am lu tax nangu ngaa jël seen ijma ci ne alquran la waaye nangu woo koo jël ci nañ ko fire maanaam kama qabilta ijmaahum fi tanzil faqbal ijmaahum fi tawil yaani fi tafsir bi mu ko waxee loolu mu xalaat tuuti daal ne ko sadaqta wax nga dëgg salaamaaleyka ya amirul muminin door koo nangoo nuyu waaye jàppe woon na ne ab yéefar la jamono yi muy agsi ci moom door ko nuyu ne ko yow amirul muminin kon day wane ne ñooñu ñu bare bari dañoo sukkandiku ci gàtt xam-xam yu gàtt yam ci ab texte rek daal di cay sukkandiku àtte li ngay àtte mu daal di jeex nga teg ci ya nga cay teg ci yeneen i àtte kooku ay njuumte la yoo xam ne dafay am léeg-léeg yàlla na yàlla musal ci lu mel noonu te musal leen ci kon defe naa waxtu bi jot na sëkk wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bi nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membres ci ay cotisations yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam